Euh, ci sa liggéey est-ce que am na ci sa liggéey wala ci sa vie en général est-ce que am na loo def loo xamante ni tey mën na mën naa ne nekk na regret ci yow. li ma def mu nekk regret ci man non man duma am regret jàngat laay am lépp lu ma def même su baaxul wala am lu ma ci dal du ma ci am regret parce que su ma amee regret rek maanaam gëmatuma yàlla. parce que ci sa biir wax ne naa la ma sant yàlla man lu ñëw ci sama kanam dama ne yàlla daf ko décidé woon ci sama destin pour man mindeef mënul ci man ñaari salaamaaleykum bés boo jógoon pour def ci doo déglu ma rek pour man dama lay expliquer bés boo jógoon pour def ci man dara loolu antu li nga bëggoon mu jot ma du ma jàpp ne yaa ma ko def dama jàpp ne ndimbalu suñu borom moo ci àndoon que yow dafa am loo waroon dal sama kaw mais foog mu jaarale ko ci sa loxo li ñu naan wërsëgu doomu aadama fu nekk lay jógee nit mën na yëkkati tey cent millions jox ma ko damay jàpp ni yàlla moo ma ko jox mais dafa tànn sa caméraman bi teg ko ci loxoom pour mu ñëw ci man moo tax aw ma regret lépp lu may def jàngat la damay naan def naa lii kat naa ci jàngat am ci expérience ba ëllëg ak ci biir lu mel ni lu ma dalaat mais j'ai jamais eu de regret dans ma vie sur quelque chose. mis à part les médias.